di leen mbokk yi ba ziar leen jaajëfal leen di leen baalu àq di leen baalu àq di nuyu suñu mbokk internet yi ñu bàyyi xel di ñu suivre ci site bu mag bi nga xam mooy comme ni ñu koy defee rek spécial laamu tey nag ñu wax si ah, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun suñu papa maam Gorgui Ndiaye ku ne xam ne démb dafa wàcc liggéey ñu ngi fi nga xamante ne mooy ci ci ci ci cimetière yi di ko di ko waaj a denc di ko wax yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aj Dakar People ci actualité lay dox li ñaanal njabootam yi suñ borom defal leen jàmm teg leen loxo macha allah ndax suñu papa woon bu baax suñu papa bu desoon ci làmb suñ papa bu bëggoon làmb boo xoolee tey Aïcha mburu Fass yi nga xam ne ñi comme ko ay Gris Bordeaux ay Serigne Ndiaye bu Fass ñoom ñu leen encadré teg leen loxo jàppaleen tey ba Fass egsi fii ndax doonee Fass te newoo suñ papa maam góor gi Ndiaye ñi koy jaale waat bu baax a baax famille bi yëpp di ko jaale njabootam di ko jaale ay doomu maki rakkam ak i magam képp koo xam ne bàyyi woon nga xel suñ papa moom góor gi Ndiaye ñu ngi la koy jaale bu baax a baax Dakar People nag dafa benn émission bu mag ci moom ndax nee naa la tey ki dem bibliothèque gu làmb la ki dem bokk na ci njabootu làmb ki dem ku bëggoon làmb la kuy bàyyi xel làmb def ci làmb lu ne macha allah nee naa la moo nekkoon koo xam ne day daan ba jël micro bi bàkk boppam tey nag ñu ngi fi nga xam ne moo ci cimetière Aïcha laa ci may topp ñu xool yaakaar naa ñu ci biir cimetière pour di ko pour di ko denc danga may topp Aïcha ñu xool ndax nee naa la axlu làmb yëpp ko fi ak yeneen njabootu làmb yoo xam ñu ngi ci biir Aïcha topp ñu xool waxtaan ak gars yi ñu jaale leen ki nga xamante mooy suñ papa maam góor gi Ndiaye Aïcha di leen fàttali na ñu ngi fi nga xamante ne mooy cimetière Yoff bi di denc suñu papa suñu xarit maam góor gi Ndiaye suñu maam ndax Aïcha boo xoolee mag la boo xam ne def na ci lu ne ci làmb nee naa la moo daan daan mbër ba pare taxaw di ko bàkk moo daan daan mbër ba pare jël micro bi taxaw di bàkk ki ma xam moom la daan ndeysaan suñ papa rek moo daan def loolu moom maama góor gi Njaay boo xoolee tey oto baa ngi noonu di dugg ci biir cimetière yi Aïcha ndeysaan oto baa ngi noonu di dugg ci biir cimetière yi ndeysaan suñ papa maam góor gi Njaay ku xam lamb ku mën làmb te bëgg ko kuy sonn ci làmb boo xoolee Aïcha jóge na fi tey de waaye ba tey nee naa tey boo ne faas te suñ papa moom góor gi Ndiaye boo xoolee tey mbalita di gis ta Fass ñuy aara Fass comme Gris Bordeaux képp bépp mbër boo xam ne yaa ngi Fass rek suñu papa maam góor gi Ndiaye bokk na ci li dina tax nga bëgg làmb wax dëgg yàlla ñu koy ñaanalaat bu baax a baax suufu yoof bi oyof ci kawam aysa nit ñaa ngi doon dugg si biir cimetière ñu ngi ko waaj ginnaaw bi ñu ko waajalee ba pare ñu ngi nii ci biir cimetière yi dugg ndeysaan di ko denc suñ papa gi Ndiaye mbokkam yaa ngi nii Aïcha dëkkandoom yaa ngi nii waaye xaritam yaa ngi nii doomam yaa ngi nii waaye sëtam yaa ngi nii nee naa la àdduna dala dara jaru fee jaay àdduna dara jaru fee mettil ndax nee naa ci suuf rek ngay mujjee buñ ne Aïcha doomu aadama doo dara mu ne bu ma ko waxati boo ne doomu aadama doo tus mu xeex ak yow waaye gis nga àdduna kenn ku ci nekk booy dund fii ngay mujj nee naa la bakkan bu ñam dund rek ñam dee suñu papa lañ indi fii tey maam góor gi Njaay ndeysaan magu làmb bu baax boo xoolee tey Aïcha làmb yàgg na ci yàgg yàggoo xamante ni te lu am solo lu am sens rek la ci daan wax suñ papa maam Gorgui Ndiaye di ko ñaanalaat bu baax a baax suufu yoof oyof ci kawam ndeysaan ndeysaan dëkkandoo yaa ngi noonu waaye xarit yaa ngi noonu am di jàmm yaa ngi noonu waaye sët yaa ngi noonu Aïcha ñu ngi koy denc ci biir armeeru yoof suñ papa maam Gorgui Ndiaye di ko jàllewaat ay njabootam di ko jàllewaat famem di ko jaalewaat ay soxnaam di wax yàlla na ko yàlla yërëm suufu yoof oyof ci kawam ndax nee naa la ay saa fii indi nañ fi ku nekk bërki dem démb njaay bu yàggul dara maman day faatu jaag lañ fi indi bërki dem bu yàggul yaay coon sekk yaay waali sekk maa ngi jéggalu tey bu ñu fi indee suñ papa maam góor gi njaay suba dañ fi indiwaat keneen adduna nii la demal la ak maa ngi ñëw ndeysaan nit ñaa ngi no dugg si biir cimetière yi ay saa ndeysaan nee naa la du mën a ñàkk jaas la kër gu ne lay fëgg ku yebu waajal sa bopp te xam ne at naa mu solo ku yebu waajal sa bopp te xam ne lu mu yàgg-yàgg fii ngay mujj di ko ñaanalaat bu baax a baax suñ papa maam góor gi Njaay suufu yoof bi ñu ko indi tay oyof ci kawam macha allah yàlla yërëm ko jéggal ko lépp lu mu doon def ndax xam naa ne amuñu am nañ ci moom yaakaar bu baax a baax tiituñu ci moom benn yoon ñu ngi ko ñaanal bu baax a baax suufu yoof oyof bi ci kawam di jaalewaat encore une fois njaboot gi yëpp di jaalewaat famille bi di jaalewaat soxnaam yi nga xamante ni moom la bàyyi ndeysaan àdduna nii la demal ak maa ngi ñëw ndeysaan nee naa la fii ku ne lañ fay àndi te ku ne dina fi ñëw du jaas de bunt bu ne lay fëgg bu yàggul dara lañ fi ñëw tey nag ñëwaat nañ fi suba dañ fi ñëw gannaaw suba dañ fi ñëwaat même ñun ñu sax ñu moo tax àdduna boo ci nekkee ay saa def lu rafet te xam ne àdduna amul solo li ñuy faral di wax rek bakkan bu ñam dund di nga ñam de ñun ñëpp nañ waajal suñu bopp ñun ñëpp nañ waajal suñu bopp ndax fii mooy njëkk te mooy mujj ndeysaan àddunaa ngi noonu demal la maa ngi ñëw ndeysaan suñ papa lañ fi andi tey maam góor gi Njaay nee la moo bëgg làmb te xam ko da ci def liggéey bu am solo macha allah. defar face ba fas rafet defar face tey ba mujjee ci Gris Bordeaux defar face ba mujjee ci Serigne Ndiaye defar face ba mujjee ci Ada Fass kenn du moom yàqul yàqul ci li bu nekk benn yoon muy mille lamb bi mu nekkoon di ko ñaanalaat bu baax a baax suuf oyof ci kawam suñ papa maam góor gi Ndiaye. ndeysaan jërëjëf. waaw

boo ko defee ñu indi xale yi xale yi paase yi. waaye waaye leer na Balla Gaye numéro 1 daal laa fekk fii mu toog ci ñun armée bi Balla Gaye numéro 1 yàlla na ko yàlla defal jàmm man góor gi Dia a defal culture lamb ñu tuddee ko l'avancée de Fass Balla Gaye numéro 1 laa gis mu toog noonu ci biir yàlla na ko defal jàmm. ndeysaan ko koy Tapha Gueye numéro 2. ndeysaan mais yaa ngi nii ñëpp waroon na teew tey ñëpp waroon na teew tey ndeysaan li leen teel nag kenn xamu ko mais nag yàlla na jàmm mais Gris Bordeaux aussi sànq ay saaf. ndeysaan yéen a ngi am jàmm yaa ngi ñu waaye nee naa la kat yaa ngi nee naa la bu làmb la ay saaf nga ko mën si jaay làmb rek la làmb rek la numéro 2 wax na ba mel ay saaf boo ci armée waaye nag am na parce que nit ku benn la wax. non non non. te yow Gris Bordeaux doo ko jël. waaw Gris Bordeaux Raju was only maybe in 20. That Bro. waaw ñoo ko bokk ñoo ko bokk. waaw yaa ñëwoon. kii dina ko wax de kii dina ko wax da ngeen essayé rek te xam naa ne deux minutes rek jàpp sa rek deux minutes defal jàmm waay maam góor gu Ndiaye moom suñu papa la suñu maam la suñu lépp la mm-hmm. waaw affaire yi moom yàlla ko yaay yërëm xar ko àjjana bu baax suñu sëriñ bu baax barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam nañ ñaan yàlla am as ju mu am xam nga comme te ay ay sëtam ak ay njabootam ñu ngi ko taxaw Sénégal yi ñu ngi koy taxaw ndax maam Gourou Ndiaye maam Gourou Ndiaye ñëpp la moo tax gis nga fi ku ñu ne ñu ñaan yàlla yàlla yërëm xar ko àjjana quoi su ko baas barke Seydina maam Gourou Ndiaye keroog bu ma Ablaye jëndee kër asalem Fass dama dem ba si moom mu ñëw wàcceel ma fa kaamil ànd fa euh, lu ñu bi xam nga loolu sant yàlla la quoi da nga xam ne man suñu jëmu njabootu làmb laa tey Abdoulaye may na ma yëpp ñu ñëw ñu wàccee ma si kër gi kaamil loolu nag moom gën a marqué sama du ñaan yàlla nag yàlla gudd ay xolal yàlla yërëm ko xare ko àjjana suñu kii yàlla macha sant yàlla xam nga jot ñu ko koy am waaye man am naa jot ndax man maam Gouroune Ndiaye man sama maam la sama papa la sama lépp la sama nit la kon boog tey bu li bu demee nii man sama bopp laa gis xam nga rek waaw waaw mooy loolu quoi mhm. waaw man damaa ngi ko yàlla yërëm xaral ko àjjana di ko jaale waa Sénégal yëpp nag rot nag yoof bi gunge fi suñu papa maam góor gi njaay mais ki ñu toogal tey bokk na ci Fass ki ñu toogal tey doomu doomu doomu ndayu suñu papa maam góor gi njaay léppam la ndax moom it wax dëgg yàlla ku bëgg sa muy père Ibrahima Mbaye ñu ngi lay nuyu fi maa ngi lay fay dina jox sa wàccuwaay di wax kilifa gi yàlla ko yàlla jégal te parce tamit def nañ ci ñun loo xam ne mook alaaji mbéy gi ak ñeneen ak ñeneen euh, lan la ku aye war sa moom waaye tey moom moo aye def na ci ñun loo xam ne fu ñu génn ñu xool te loolu defe naa képp koo def ci yow euh, yéene la taraanga li ngay yëngu mu dimbala la ci teete la ci teg la ci yoon ba nga xam ne yaa ngi ci am loo suturloo di ko jox sa njaboot kooku sant na la jaamu yàlla. alaaji maam góor gu lu ñuy wax ci moom des na waxtaanam yëpp mooy nu mu lay éduquer nooy jaamoo yàlla noo yor sa njaboot ëllëg muy taalibe àqan nag ñëpp xam ci moom ba ñoo ko lu mu jur waa kër sëñ sëñ Jami la ko tuddee lu mu jur rek fa la leen soo gisee tey rob bi ni koy robee ñaan goo xam ne jël na une heure de temps loolu ku liggéeyul si alaaji Maalik doo ko am ku liggéeyul Serigne Touba doo ko am moo tax liggéey rek a wóor li ñu mën a mooy am na diine yar na njabootam. lim doon yëngu it mu seey ñaaw benn yoon foo ko seqee moom bu jeexee def na la doomu ndey dañ koy ñaanal yàlla jégal ko te yërëm ñun ñi nga xam ne moo ñu yar nag ñu doon ko gunge muy nekk ci lu wàllu tàggatu yaram ñu koy wax bëre wax dëgg yàlla da koo rafetlu woon kon nag ñu koy ñaanal yàlla rek yàlla na ko yàlla jégal te yërëm ko lool lañ ko desal ñaanal suñu borom dina ko def na am nañ ci yaakaar ndax def na ko ci ñi mu yar def na ko ci ay doom def na ko ci ay dëkkandoom loolu daal dañ koy seede daal xamal ko ne lépp loo loo jënd lu baax ci doomu aadama ci baax ak jullit ak doon diine mi ngi ci alaaji maam góor gi Njaay dëgg la. ayca loo ñuy fàttali loo xam ne tey dund nga koog moom mu neex. waaw li ma dund ak moom lu neex mooy saa yoo ko rombee soo toogee li mu lay njëkk a wax mooy da lay sunu borom xiirtal mooy li ma wax léegi rek xiirtal la ci àdduna moytu loolu lu baree baree baree baree muy ku baax mënoo toog ak moom te reetaanoo dem nañ ko sax boo bu si Jamil soo yéexee sax mu la yow laay xaar xam ne. li mu fi mu féete woon da koo fésal ba képp kuy nitu diine xam nga ne fii la féete te pourtant këru diine yëpp la boole amul fu mu bàyyi nag fépp la dugg rek kon alaaji maam go li ñu mën a wax ci moom daal mooy daal day ñaan rek yàlla yërëm ko te ko. Fass comme yow ak ay Gris Bordeaux gi mais ñeneen mbëru Fass gisuñu waaw ci des nag ñoom ñu ngi fi Moustapha dafa voyagé ajjuma la dem ci ngoon ñu tàgg ko alaaji maam góor dafa voyagé moom nekku fi ak ñeneen ak ñeneen xaj nag yëf dafa tombeek appel bi ak yeneen ak yeneen mais bu bu si ñaan gaa lépp lu ngeen xam bëgg xam ci alaaji maam góor gi ñi mu yar ñi mu tàggat dinañ ci wax lu bëree baree baree bëri ku mel ni Ndiouga Dia ngi ni toog moom it ñi mu yar ci la bokk mën nga àgg ci moom. Ndeysaan Aïcha ba tey tey nee nañ tey témoignage rek la ñuy def tey suñu papa maam góor gi njaay ginnaaw nag wax dëgg yàlla bi ñu ko euh, jébbalee boromam ñu gunge ko dara ko fi nga xamante ni andi ko fi nga xam mooy armée lu Yoff suñu papa suñu doyen suñu xarit Père Ndiouga Père Ndiouga maa ngi lay masaw di la jaarale Euh, man tam maa la koy delloo ndax ñun ñëpp ñoo ko bokk du nuyu Sénégal gépp di rafetlu bisu tey bii di appel maam Limaamu Laay may ñaan moom mag ñi yàlla yàlla fay ñu leen euh, maam góor gi wax ci moom yomb na la ci keppaaram lañ yaroo musta xool ne ñol xale musta newal xale doole mu musuma toog mu mu mu mu merloo kenn kenn kenn kenn ci ron ron njabootam ak njabootu jàmbur la yemale woon boo demee këram da nga naan fii sax xanaa xanaa kilifa nekku fi ndax këram daanaka dafa naa buntu ba du tëju kon maam góor gi dafa jaboote woon ñëpp doon ku baax di ku généreux nekkoon borom lam moo xam ne wàllu yi la lañ ko mënoon tuddee parce que taraxu seexu tijaan la ngemboom moom la tekkee ngemboom moom la dund ba màgg ci faatu ci yàlla na ci xippee aljana loolu lañ koy ñaanal quoi maam góor gi daal buñ ciy wax fi la ñuy fanaan dangay bàyyi ba suba ngeen ñëw kër ga ñu motu li ci des ndem soom na yàlla voilà. ok fils ok ma.